am daañu ci xuus ndax euh, daañu def euh, phénomène bi nga xamante ni moom mooy maraboutage maanaam euh, njibar olof di ko wax njibar maanaam sëriñtu donc feuse tey loolu la ñuy waxtaanee daal di koy fësee ne teg ci table bi rek kenn ku ci nekk daal ci indi sa xalaat indi ci sa gis-gis laata ma lay ma lay poser sama question bu njëkk. Mhm. wala sax bii naa ko def question bu njëkk rek. Mhm. ndax yow gëm nga ni maraboutage am na d'abord. waaw mën naa comme li euh, ma la ko waxee rek ginnaaw bi ñu nuyuwaatee ñëpp ba pare. Mhm. comme ni ñu ko waxee sànq mu di loo xamante ne. Mhm. Euh, sedd nañ ko mën nañ ne sax phénomène la ko ñenn ñu def. Mhm. waaye boo nee booy laaj ndax njabar am na wala amut. am na ndax euh, da ngay dégg sax ñuy nettali ne dañ ko testé woon ba testé ko ci ci ci nga xam ne moo di gën gi mbindeef. Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam testé woon nañ ko ci moom mu daal di jàll. nga xam ne am na. Euh, mu di lu am nag waaye tamit euh, di loo xamante ne euh, nit di jëlee nañ ko jëlin boo xam ne ak façon bañ koy defee ak nañ koy defee. Mm-hmm. ñu ngi ciy def yoo xamante ne nii yéeme na yéeme koo xam ne di ci yàq doomu aadama. Mm-hmm. di ci def naka su dul noonu. Mm-hmm. te alxuraan dafa nekk loo xam ne yàlla bi mu ko wàccee wàccewu ko woon pour ñu ci jël di ci yàq nit. Hmm. donte donte ni mu amee luy yàq nit. Mhm. noonu la amee itam luy defar. Mhm. maanaam alxuraan ni mu baaxee di defar. Mhm. noonu la amee lu mën a yàq. d'accord comprendre nga. d'accord mais yàlla ba mu koy wàccee yaakaar naa loolu taxul woon. waaw euh, jabar nag moom boo nee am na wala amut. Euh, léeg-léeg da dégg ñu naan la la loo naan am na rek wala amut rek daa fekk jàpp la. effectivement mais jabar moom euh, ku ne xam ne lu am la. effectivement donc lan mooy njabar selon yow. njibar xam nga. njibar olof moo naan njibar njibar waaw. waaw waaw njibar. njibar nanaa mooy nga dem jël turu nit yóbbu ko fenn. Hmm. defal ma nit lii yàqal ma diw. lee mu yóotu bu mu ci jot. Eh, hmm. lee mu bëgg bu mu ko am lu lu mu mën a jublu rek balaa mu ci bu ci amee yaakaar muy lu baax na yàqu. Hmm. te xam nga yàlla daa noppi. danaa yàlla gën a noppi. effectivement yàlla maadu maadu tem passé wut euh, mu sàkk doomu aadama. Mm-hmm. mën lu ne. Mm-hmm. mën a toog jàkkaarloog doomu aadama ñu dem ci njabar def ko loo xam ne da koy jàpp ba faw yàq àddunaam ba faw yàlla noppi di seetaan. waaye ma lay xaar moom nag daraam da ko yàqamte wut man xamal lu tax mu neex ma. Mm-hmm. <laughs> moom yàlla. dafa patient non ma neex tax dafa yàqamte wut daraam. moom da ngay def li ngay def mu toog di xaar ba nga ñëw. waaye léeg-léeg it mu won la ko balaa ngay ñëw. Mm-hmm. effectivement. mais baa yëg nga ne mu won la ko balaa nga ñëw sax moo gën mu xaar ba nga ñëw. Mm, dëgg la de. xam nga mu won la ko fii balaa ngay dem moo gën mu lay xaar ba nga ñëw ndax fee eh, ku ne xam na ne loo fa yóbbu du doy. Mm-hmm. loo fa yóbbu ci yiw ak ci lu baax du doy. Mm-hmm. ndax dangay dégg sax boroom xam-xam yi naan la Euh, ku fi génn àdduna boo ko fëggoon tey laaj ko li mu lay njëkk a wax. Mm-hmm. dégg naa bu buñ faatoon ne génn àdduna dañ naan yàlla est-ce que doo ñu mayaat cinq minutes ñu delluwaat àdduna pour defalu pour jaamuwaat la. pour bëgg a yokk li nga xam ne def nañ ko mm-hmm. parce que foofa loo fa yóbbu ci ci yiw ak lu baax. lu mm-hmm. doy euh, ba tax na ñu fayale ko fii sax mooy gën ñu xaar ba foofu. léegi la yàlla nag am na ñooy fóot fii. yàlla waaw am na ñoo xam ne balaa ñu génn àdduna da ngay gis seen sukuraat day métti. Mm-hmm. seen mujj day métti fekk yàlla mu ngi leen di fóot. Mm-hmm. ci ci yi nga xam ne ay yi nga xam ne ñi ngi ko doon def. Mm-hmm. yàlla dimbale leen fóot leen fii balaa ñuy dem. yaakaar naa loolu moo tane waaye moom dara moom xam naa ne yàkkamtewu ko moom. da ngay dem ci jabar yóbbu fa tur. ñu jox la saafara béjjën nga dem nga suul dem tëdd yàlla. mais nag li ma gën a jaaxal mooy naka la nit di jëlee béjjën wala nga jël lu mel ne sunguf dem mhm. gas ba mu egg nga suul mhm. wala nga jël fas dem ci guy dem fas ko fa ba mhm. pare dem tëdd di nelaw man loolu man jaaxal na ma <laughs> dinañ ci ñëw fës ah. euh, mais mais mais ndeysaan tontu bu am solo nga ma nga tontu euh, donc euh, muy njabar mooy nga dem ci nit wala nga dem ci nit comme yow comme ni ñu koy waxee. Mm-hmm. parce que sëriñ bi itam nit la ki lay ñaanal nit la comme yow. doomu mm-hmm. aadama la comme yow yàlla lay tàll loxoom di ko ñaan comme yow ni nga mënee tàllal say loxo di ko ñaan mais li li gën a doy waar mooy dem ci nit ngir yàq moroomu nitam. Mm-hmm. sa moroomu nit en tant que tel doomu aadama comme yow nga ne tey du fi amee lu baax du fi dawalee oto bu baax. du fi am liggéey bu baax du am jëkkër ju baax du am lenn lu baax loo xamante ni rek. man mën naa ko ko xañ te duma ko ko xañ mhm. donc Feuz kan moo war a dem ci sëriñ bi ñaanlu ak kan moo ca warta dem sëriñ dem ci sëriñ ñaanlu na naa ñépp a ko war a def ñëpp waaw mais ñaanlu laa wax hmm. ku nekk am nga droit dem ci sëriñ d'accord ñaanlu waaye nag man damaa xam ne am na lu gën a am na lu gën a efficace loolu sax muy lan mu di tàllal sa loxo suñu borom ndax moom moom moom lépp di hmm. waaye nag dafa mel ni ñun dañoo dañoo gëm yàlla ba pare te wóoluwuñu ko. effectivement da ngay gis ku dëkk ci jullee ka jàpp ko julli di ñaan yàlla waaye tere terewut. Mhm. ma ngay dem ci sëriñ di wut ay muslaay da di nag xëy na. Mhm. man nag loolu du ma ko du ma ko du ma ko. blâmer parce que dama naan mhm. rek xëy na fi ñu toll la ñun te suñu ay réalité xëy na ñun dañoo judd fekk fi aada jooju. ngay dem di wut ay muslaay. di wut ay ñaan te da ngay dégg si mag ñi sax. maa ngi dégg ci nettali ñu naan sëñ Fall daan na wax naan ku xeeb xarxafu fa xarxafu fa ne la. ne la foofu ak mhm. naan de leen dem ci maamani. Mhm. voilà léegi kon loolu bu fekkee lu ñu fekk la man jàpp naa ne war ngaa mën a dem ci sëriñ ne ko defal ma loo xam ne kat sama yaram bii dinaa ci am jàmm. Mhm. musal ma ci cat ndax cat nag <laughs> cat a gën a bon liggéey. effectivement. Euh, bi Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa daan na wax ne bu gënee gaaw lu bu amee lu gën a gaaw dogalub suñu borom cat la. allahu akbar lu ëpp ci sama askan tamit li leen di yàqal ak li leen di rey cat lay doon. Mm-hmm. kon xam nga ne cat loolu ñun ñun mënuñu ko jële ci ñun. Mm-hmm. waaye tamit xëy na am na ay muslaa yoo xam ne tey jii ci alxuraan. Mm-hmm. mën nañ ko fay jële ñu gis mag yoo xam ne yàlla may na leen ndax am nañu yàlla may. nga xam ne boo ci demee dinañ la dimbale ci sa yaram mu set. Euh, nga muslu ci yenn yi. mais pas nag pour dem ne nanaa mii kat place bi mu nekk dama ko ko iñaana dama ko fiy déjjatee. te yàlla teg ko fa. effectivement. xam nga jabar nanaa tey jii su ma doon xool ñi nga xam ne ñoo koy def. ba pare mhm. tëdd nelaw maa ko wax sànq. Mhm. mais yenn yi gëmadi yàlla da cee bokk. Hmm. ndax gëmadi yàlla mënut paase nga gis nanaa am lii. Mhm. nga ne nanaa warta am lii. nanaa warta dem dëkk bee. wallaahi nanaa place bi mu toog mérité woo ko. nanaa warul am jëkkër ji. te yàlla moom yàlla mi sàkk nanaa sàkk la yow moom moo moom moo tracé loolu ci moom. léegi lu tax yow nga ne loolu warta am. nga def ko ba pare rek ànd ak sa xel mu dal dem tëdd nelaw te xamoo ba xam ne jour bi nga koy def. Mm. pourtant mën naa am balaa ngay dëpp mën ngaa faatu ci yoon bi. wallaahi boo demee lan ngay wax. Mm. ana boo demee lan ngay wax suñu borom. Mm-hmm. te nag kaay wax la leen nanaa mm. gis nga olof Ndiaye day faral di am lu muy wax naan bul xa xeeb xeeb nit ndax xamoo lu ko ndeyam boote. ndax fii ku nekk rek am na loolu sa ndey boote rogantee la. Mm-hmm. du ñëpp la laal. léeg-léeg nga dem waxuma la yow mais dalay topp ba ci say sët. Mm-hmm. say doom dootuñu baax say sët dootuñu baax. Mm-hmm. liggéey seede yàlla liggéey ba day ne di ñëw ci yaw mm-hmm. ñëw ci say doom delluwaat ci say sët. kon nañuy moytu di dem di def nit ku lu bon. xanaa nit ki war nga koo mën a gis mu am lu baax sax nanaa nag. nga dem ci ab sëriñ ne ko ñaanal ko lim di di jikko. du Sénégal gii loolu luy problème bi loolu. yii loolu du Sénégal que dafa tee yow li nga war a am nga am ko. wallaahi. xanaa xamoon na naa nit ki li mu sàcc sàcc. sàcc ki nga xam ne day jëlee fi jàmbur. Mhm. dafa yàkkamti sax waaye lam jël moo ko moom. wallaay dëgg la xam nga yooyu olof. bu baax dañ naan la ki nga xam ne mooy jëlee fi jàmbur daa yàkkamti dem jël ko waaye bu toogoon tuuti moom loolu moo ko moom. dëgg la kenn mënut a lekk wërsëgu nit. ak akaleer. kenn mënut a lekk wërsëgu nit moo tax loolu nañ ci bàyyiwaat xel bu baax. Mhm. di ànd ak yàlla mooy li ma la wax rek ndax yenn yi gëm di yàlla yàlla mënul dogal dara ba pare yow nga jóge fee nga ne danga koy dindi waay. effectivement donc yàlla ba muy dogal euh, kenn moo ko fekkee euh, donc euh, mais nag feuse am na ji yoo xam ne dafay antu feuse yaa ko wax léegi nga ne tolluwaay la. ci tolluwaay boobu laay ñëw. Mhm. muy dañoo toll jamono joo xamante ni dem na ba nit bu feebaree sax dañ naan ko demal ci maama nii. waaw ndax loxo defu ko. Mhm. dem ba bu sa yaay amee wujju lu la dal dañ naan wujju yaayam ko liggéey dem sax ba nit ñi dañuy kafee kii ndax ndax wujju yaayam liggéeyu ko yow ndax mm-hmm. dëggoo liggéeyu jàmbur ndax nàngam ak nàngam kon mu mel ni tolluwaay bi dafa dem ba lépp dañu ko wéer ci njabar dañu ko wéer ci nit ki lu mu def rek wala lu ko dal bu tànkam newee ñu ne dañ koo njibar mhm. euh, su loxoom neewee ñu ne dañ koo njibar sa bopp di metti ñu ne luñ ko def la mhm. sa biir di metti ñu ne lu mu lekk la dañ ko koo jox mhm. loolu noonu dem ba doon euh, way woo xamante nit ñi dañu koy wayantoo mhm. ndax tolluwaay benn toll mhm. wala jëf ji peut-être ñu gis ni peut-être jëf ji ñu ngi antu maanaam dem ne sëriñ bi damaa bëgg nga ñaanal ma feuse mi euh, def nangam ak nangam loolu antu est-ce que du loolooy waral tamit euh, ñu ñu mu doon way waaw xam nga loolu li koy indi mooy li ma la wax sànq ne la yàlla dañ ko gëm ba pare wóoluwuñu ko mhm. tey ji boo demee ci am jibar koo xamante ni day def euh, tariyàq sax laa wax du mu tariyàq laa la tudde mhm. nga dem fa tey mu mu seetal la lim lay njëkk a def dalay seetal daan la yow de yaa ngi liggéeyandoog benn xale bu jigéen bu ñuul. dëgg la sama xel mi ci lay dem. nana dëgg la. kooku da di liggéey mu lay ree rek waaye bëggu de. Mhm. bu fekkee damaa dof wala mu am benn ñaaw njort rek mhm. dëgg la sama bopp benn côté xaaji bopp di metti ma ne kon dañ ma sëf nanaa la kon. <laughs> dëgg la. loolu moo fi am. effectivement commencé jaxase sama xel mi léegi man gëmatuma yàlla ka ne man euh, yàlla moom mi la bind. Mhm. moom mooy liñ naan lu tooy day waw. dëgg la ni muy bindee garab muy jékki-jékki di béjj ba mu yàgg garab gi daal di daal di lax. Mhm. yenn saa yi mu jébbiwaat wala mu xëy sax dee. yàlla mhm. léppam da koo misaal. effectivement des gis garab goo xam da nga koy gis mu béjji. rafet jébbi nga jéjjee gis mu commencé di lax ndànk lax. jékki-jékki daal di jébbiwaat. doomu aadama noonu la ko yàlla sàkke ba ci yàgg léeg-léeg nga feebar. Mm-hmm. léeg-léeg nga tamit nga xëy faatu. wallaay yàlla mu bind ay jaamam noonu la programmé. Mm-hmm. léegi nag bu fekkee yow gëm nga ne lu lay metti rek yàlla mi la bind moom nag moom mën na laa teg ay mettit mais boo yaakaar ne yow lu la metti na naa mii moo la ko teg. xam nga lu tax ñu dof côté boobu. Mm. te dangay dem ci nana sa bopp di métti tey nga dem ci benn sëriñ. mu jox la mm-hmm. benn cuuraay nan demal nga suuroo ko. Mm. wala fas. Mm-hmm. wala mun la téere bopp. Mm-hmm. nga takk ko ci sa bopp bi de ba suñu greffage yi sax doo ko mën a teg des fois. si ñooy rafet yi doo ci mën teg. ndax téere bopp bi. dëgg la te pourtant da ngay dem ci pharmacie léegi jënd fa benn médicament nga naan ko léegi cinq sa bopp bi sedd. xanaa kon ñun ñun ñun ñi ngi ñi ngi fowee suñu xel mi. tubaab yi ba ñuy xëy di liggéey ak di am xel mu rafet ak xar xel mu baax di di di di di defar yenn yi nga xam ne mën na dimbale doomu aadama mhm. ñun ñuy xëy di wër sëriñ si ak di mhm. ñuy lëndëmal suñu xel yi mhm. naan ñu nanaa moo la sëf ba sa bopp bi di metti te téere bopp bi mën naa ko takk takk plus de si mois sama bopp bi du sedd mm. fas gi mën naa ko takk bopp bi du sedd ndigg li day metti ñu ne la ndigg fas gi fasu ndigg la soo demee léegi pharmacie jënd fa benn garab naan nga koy takk nga koy naan li lay metti seen léeg léegi nga fas fasu ndigg mu tane wala nga fas fasu bopp mu tane. day tane daal di waat hmm. waaw. Hmm. mais day gis ñoo xam dañ naan la téere bopp bi boo ko takkee dangay tàqalikook bopp bi metti dëgg la loolu lañ lay wax. Hmm. voilà. waaw am na ci waaw ah, léegi boobu noonu. maa ngi dégg ci nettali mag ñi eh, ne am na benn naar bu ma soon am benn góomu tànk. ñëwoon ci sëñ bu sëñ bi sëñ Fallou. waaw ne ko sama góom bi di rawaale dañ ne ma du wér fu ne dem naa fa mënut a wér. Mm-hmm. sëñ Fall jël benn kayit rek laxas ko rek benn kayit rek jox ko ko mu dem takk ko mu dem. ndeysaan mu dem rek góombi wér. waaw mu dem dindi téere bi quoi daan na xaaral ma dindi ko ndax bu amatee ku am lu koy metti mu mën la koo bindal maanaam man cee liggéey mm-hmm, xaalis. Mm-hmm. ba mu dindee kayit ba kayit ba fekk fa dara. mu delluwaat ci sëñ Fall bar ba mu delloo ne ko yow téere bi ma jox ne ma pour sa góom bi la góom bi wér na waaye téere bi bindoo ci dara. mu ne ko ndax damaa xam ne loo gëmul du la jëriñ. dëgg la su ma ne la woon su ma la ñaanaloon rek ne la demal doo dem mais fale ma bindal jox la loo xam ne di nga gëm ne lii téere la. nga mën laa faj. parce que yéen gëmoo leen moo tax looloo tax ma jox la téere bi. Mm-hmm. mais ba waxee la may wax ca góomba la góomba wér. Mm-hmm. pour wax la ne la gëm-gëm bi nga xam ne moom amee ko demee mm-hmm. loolu moo ñuy sonal. nga dem ci sëriñ mu ne la. nanaa mi moo tibb sa tànk bi mm. moo tax sa tànk bi newi wallaahi fekk na amaana sa tànk bi billaahi boo demee kii nga amee nerf sciatique <laughs> wala feebaru yàq boobu nu mu sax. boo demee moom nga amee. Mm-hmm. te xamoo ci dara muy néew di dem nga jiñ ko nanaa. wallaay yaa ngi bàkkaar. Mm-hmm. yaa ngi yaa yaa ngi yaa ngi foowee sa xel mi. Mm-hmm. hôpital nga waroon dem nga faji ko au lieu nga dem hôpital mais da ngay dem ci maaman yi. ñu yàq sa tànk ba sa tànk ba jaara fa yàq ñu daara fa daal koy dagg yooyu fi am wallaahi dëgg la yooyu fi am. dëgg la fekk loo xam ne hôpital la ko war a faj nga dem ci sëriñ si topp leen dëgg la voilà kon li nga wax nii daf ma rappelé benn ancien lutteur bu feebaroon nee na dafa amoon problème mu tànk xam naa kii may wax gars yi dinañ ko xam bu baax a baax nee na gars yi naan ko demal demal ci puisque voilà puisque yéen fi ngeen nekk dafa délicat li ngeen nekk dafa délicat donc demal ci maama ni xam na peut-être def def la ndekete dafa am li nga xamante ni moom mooy euh, insuffisance rénale mu feeñ ci tànk yi donc moo dem ba jural ko yooyu noonu ak reen yi mu doon naan léegi après tànk fu mu mujjee non actuellement moom mi ngi sant moom waaw xëy na gars yi dinañ xam bu baax ki may wax. Euh, parce que dafa mujjee dem bitim réew dem faju jee fa. Mm-hmm. mais Feuz. Mm-hmm. Euh, yaa léegi. dem na ba ñi nga xamante ni ñoom euh, peut-être dañoo dem ba ëllëg ñu dem faju jee ci fa war a faju jee. Mm-hmm. dañuy def l'inverse parce que peut-être te li gën a doy waar mooy Feuz da am sa benn xarit boo xamante ni day doon courtier. courtier Mara wala courtier benn benn benn sëriñ jékki-jékki ñëw ne la nga am nga dis ko say soxla ay man sama sëy bi nangam ak nàngam sama mhm. biir bi nangam ak nangam maanaam jàmbat ko mu ne la am naa sama sëriñ bu mën am naa sama benn maaraa boo xamante ni. fekk moom mënul la très bien lum la def loo da koy def non yenn saa nga tombeek ñi mën sax waaye mhm. yenn saa it. comme ni ma la ko waxee damay damay wax ci courtier yi balaa maa balaa may ñëw euh, ci ci ci sëyu ku jéyeeg ñoom seen parce que tey dama bëgg ñu laal fépp feuse euh, courtier yi nga xamante ni peut-être dañuy ñëw mhm. xamal la sa biir xamal la sa biti dem wax ko sëriñ ba mhm. wala soi-disant sëriñ ba moom nga ñëw mu ne la lay seetal fekk sa xarit ba jaar na ci sa ginnaaw mhm. nettali ko ne ko lii yee kon metti jëkkëram nangam ak nangam fexeel ba wax ko nangam ak nangam lii ndax mu gëm la mhm. su ko defee yow da ngay jël sa yaakaar gi yépp teg ko ci ki nga xamante ni moom mooy sëriñ bi donc ñooñu aussi am nañ ci part de responsabilité bu mag feuse waaw parce que courtier mhm. ñu ci bëri nag fi mu ne nii ay courtier lañ ma wax la ko nag bien sûr ñu ci bëree bëri dañuy dem sax ci sëriñ mu di leen wax ñuy ñëw di ko di di ko waxaat fekk na dafa am ku leen koy wax dañuy dem ci nit mu doy leen ñu daal di koy biral ñu naan ñooma ñooma fekk du ñoom am na fu ñuy dem guddi gi wala fu ñu làqutoo ci néeg rek woo ko laaj ko na ko lan mooy xew ci dëkk bi <laughs> wala léegi lii ñëw ci yow nanaa ne la am naa ah, mën naa laa faj yow muy Feuzi yow da nga garaaw de yow man maa ngi lay wax courtier yi nga xam ne dañ lay jege kon kon kon sëriñ si am na ñoo xam ne ay courtier sëriñ lañ waa ah bon am na ay courtier sëriñ ñoo xam ne dañu jël mu mën a seet déggoo li ma la wax de man mii mën naa nekk tey ji sa courtier yow nga mën a faj. waaw xamuñu la de man lañ xam. Oh. suñ ñëwee ma lay jox ay garab. yow nga ñëw fësal suñ ñëwee ci man dama naan leen. waaw sa lii temps temps la man dinaa ko faj. léegi demal ba jour tel nga ñëw léegi avant jour boobu noonu yow ñëw naa ci yow ba nga jox ma garab yiy faj loolu. ma ñëw jox leen ba courtier am na fi bari na fi. loolu am na fi ñooñu mënuñu de mais dañuy am ci ñu ñuy dem ñooñu di leen jox mais ñi ñuy dem aussi le part de responsabilité bu mag boobu noonu ak c'est-à-dire euh, xam nga naan la ñi mën dëgg-dëgg du ñu wanewu déedéet mais lan moo tax ñu nangu di fësal koo xamante ni mënul pët parce que kooku mën na nax keneen ci seen tur ñoom. Nana yow su ma ñëwee ne la damaa soxla ndomba tul. Mhm. nga di ma ko defalee par exemple dix mille. Mhm. ma la yow tamit sama waay nga defal ma ko cinq mille. Mhm. daa am sama waaju ko soxla. nga daan ma ko defal cinq ma ñëw laaj. Euh, commune ne binet mii ne ko cinquante mille lañ koy defaree. Hmm. aw ma ci bénéfice. dëgg la de bu mag sax. bari nañu koy liggéeyee fii loolu. ah ok kon à vrai dire euh, ki nga xamante ni moom mooy sëriñ bi dëgg mën na bañ a yëg. nekkee mën na koo yëg sax nag mën na ko yëg. mën na ko ne man am naa ay xarit yoo xam ne dañuy soxla gàllaaj mais wóolu naa la dinaa ñëw nga may defaral gàllaaj ma di leen yóbbul loolu mën naa ne. ma ñëw ne la ñu ñëw ne ma li si xaaral ma ma ñëw jox la turu nit na la diw li si xaaral ma ko guddi nga li si xaaral ma ko boo xëyee wax ma résultat yi ma xëy woo bi net ne ko léegi lii laa gis dégg naa am na benn seetkat fekk man seetu ma sax dañ ko seetal seetkat bu mag bi <laughs> benn seetkat bu mag dégg naa da da koy jox sa tur ak sa turu yaay mu dem ca ka ko ka nga xamante ni moom moo koy seetal lépp mhm. daan ne ko diw de maanaam kii nanaa la tudd mi ngi sant Dieng yaayam nangam la tudd moom mu wax la lépp ci nana nga daal di ñëw tiim nana. waaw ah, mooy li mooy courtier mooy li ma la wax ni mooy li ma la wax ni bi na day ñëw ne mën naa ko lis xaaral ma ne ko waaw demal su guddee kay ci yow laay fanaan. mais est du sénégalais ma ko yow man ma mais est-ce que du sénégalais yi ñoo nangu ñu nax leen quand même mais am na si ñoo xam ne duñ ko xam nag duñ ko xam parce que yow mi nga xam ne yaa nekk courtier sëriñ. Mm-hmm. ñoom dañuy nekk sëriñ déjà. Mm-hmm. mën nañoo sol lu ne sel seen mbubb yi rek yooyu yor seen ay kurus ñu naan daa mën a ñaande fekk moom mënut. allah daa am ku koy defaral. <laughs> doy na waar fekk moom mënul dafa am ku koy defaral. doy na waar indil donc maman Sow ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax pour yéen ñi ñuy doog a dab. Euh, yéen ngi ci seen biir émission fii lay xewee comme tous les vendredis bu 16h jotee euh, fii ci télé Sénégal TV ma ci ànd ak sama xarit euh, Feuz Feuz ba tey ñuy nekk ci maraboutage. Mhm. dem na ba booy sëyi sax. ñi ngi lay ngemb lu ne ñi ngi la koy defal ci ay débat déeb mm-hmm. demal ci sëriñ bi ndax sa sëy yàgg mm-hmm. alors que dem ba euh, laataa laataa sëy sax feuse da ngay gis boo jànku euh, nga jànku-jànku bu yàggu dem ba ay 30 ans wala ay 39 ans yooyu jëm 40 ans euh, dañ lay dugal sa bopp ni xëy na mm-hmm. dañu laa dëj ba tax mënoo sëyi wala rab dañ hmm? wala ay rab raba la ko def très bien wala sa wujju yaay bi ci kër gi moo moo fexe ba euh, bëggul nga sëyi bugg ay doomam rek di sëyi yàlla bu mu doon rombee nag say doom yi bàyyi di sëyi yow nga toog ci kër gi mm-hmm. day dem ba sa yaay sax day bokk ci influence boobu noonu mm-hmm. donc dem ba booy dugg booy dugg ci sëy rawatina nag yu kujje mm-hmm. ñu ngi naan la sa wujju bi dafa dafa ñeme sëriñ waaw fii néew na kuy dugg ci sëyu kujje te waxuñu la loolu baat boobu moom dafa doon ba dafa dem ba doon way mhm. su ko defee yow mi nga xamante ni yaay ñaareel bi wala nga doon ñetteel bi wala nga doon ñeenteel bi bref yow mi nga xam ne yaay fekk ji jéeg ca kër ga mhm. da ngay def sa bopp ni bu ma ñànduwul sama sëy mën naa tas du jour au lendemain mhm. su ma sanguwul sama sëy mën naa tas su ma su ma takkul naanu ma sama jëkkër mën na maa wan ginnaaw ba ci ki nga xamante ni moom ngay fekk si itam nee nañu ko peut kii di la fekk si de dina fexe ba sa jëkkër dootu la joxati bopp ndax yaayam noonu la daan sëyi mhm. dem ba dañu koo favoriser def ko ci bopp nit ñi ba sëyu ko ji moom jamono ji moom euh, sëriñtu bi da cee njibar gi da cee ñu bari ñemeetuñu ko sax ndax loolu mhm. waaw xam nga loolu nanaa man am na fu ma d'accord dem wuti ñaan mhm. ndax mag ñi sax dañ koy faral di wax xam boo gisee ñu ne la même ab sëy sax ci lañ dagana li saxaar effectivement xam nga ay maalum ceet ak ay li saxaar yooyu dañ naan dañ koo sib Mm-hmm. mais ci wàllum takk sëy mm-hmm. bëgg nañ ko ci ndax balaa ngay dugg ci jigéen muy góor muy ko jigéen ki da nga ko war a seet ba xam yéen ñaar war ngeen a ànd mm-hmm. voilà waxuñu la sax nga yem ci kenn dañ ne la nga dem ci ñu différent ñu xool ba xam est-ce que yéen ñaar ñi seen wërsëg yi ànd na seen rawxaan ni ndax ànd na ñu ngeen doog a dugg ci sëy bi que ça soit booy jënd oto lu ci demee nekk ay kër ak yu mel noonu yooyu mën nga ko li saxaar waaye tamit mën nga tamit wut ñaan ci sa sëy nga dëj ko am benn mag bu ma mas a wax ne ma yéen xale yi li tax seen sëy di metti mhm. da ngeen na teela bàyyeeku yéen bu ngeen demee seen jëkkër nopp leen ngeen di eh, ngeen seen sëy neex rek yaakaar ngeen ne da war a bàyyeeku alors ko du loolu mm. mu ne ma sëy eh, ñun mag ñi daan nañ toog quatre ans yoo xamante ne ci dëj sëy bi la ñuy nekk ah bon maanaam dëj dañ koy dëj sëy dañ koy ñàkk dañ koy dëj mm. ma ne ko ah mu ne ma waaw mu ne ma looloo tax sëy yu bëri yi yëngatu yi li bëri nii loolu da koy indi mm. eh, waaye sëy man ànd naa ci boo duggee ci sëy de wax dëgg yàlla nga dem uti ci ay ñaan ba sëy bi comme te léegi moom ñëpp bokkuñu xam nga danaa nag bu ñëpp mhm. yemoon ut ay ñaan gis nga bu yëpp ñamoon waaw nañ nañ leeral foofu ut ay ñaan pour lu la jubooleeg sa borom kër waaw waaw juboole laak say mbokki jëkkër waaw ba pare kenn du xaj sax ci diggante bi maanaam kenn du ci xaj mooy mhm. euh, kenn du ci mën a wax dara lu yàq wala nga ciy def dara loo xam ne day yàq d'accord loolu man mhm. pour man du aay waaw te loolu ci alxuraan am na ci alxuraan. Hmm. nga boole ceeg tamit nag sëy xanaa xamu ne nanaa naa la xamal. affaire benn affaire surtout. gis nga hmm, insister ci loolu de doon liggéey nit tey jii. pour hmm. la. te yow neexaloo ko neng nengaloo ko liggéey ba du jàpp. xam nga loolu. d'accord tey jii boo doon boo doon nopp nit. nga di ko noot pour mu pour mu topp ci say waaw. da koy neexal di ko neng nengal liggéey ba jàpp kut ko kut. ah waaw lii man maa la ko wax. ok mais yow da ngay liggéey nit ki ba pare pour mu topp la ba pare nga di ko ñàkk kersa di ko liggéey ba duñ mën sa jàpp. Hmm, am na am na seen liggéey ba du mën sa jàpp bas day jàpp de feuse. déggoo li ma la wax am na góor ñoo xam ne ñu ngi leen di toroxal am jigéen ñoo xam ne ñu ngi leen di toroxal góor ñi di leen def naka su dul noonu ñu la ngaamu ca sëy ba rek topp ca ndax liggéey. li ma lay wax nii de lu ma leer naññ laa lay wax. li ma lay wax nii. lu ma hmm. leer naññ laa lay wax. maanaam liggéey bu gën a jàpp pour mu gaaw a jàpp dëgg-dëgg. Mhm. yaa ngi nopp sa jëkkër ji pour mu toppale loo mu def ko de waaye yow it day ci ay waam di nekk ci ay di moytu ay tereem nga xool. mais xanaa xanaa xamoo jigéen ñi dëgg bala ñu balaa ñu laa gën a mën a këll-këllee <laughs> xam ne jàpp nañ la fenn da ngay dégg jigéen joo xamante ne danaan la sama jëkkër sama lafu sër laa ko fas ak ñoo dof gis nga ku ci bàyyiwut naan sama jëkkër sama lafu sër laa ko fas hmm. <laughs> ay puupa rek li saa nekk doon wax naan ay puupa rek ngay jóg yaa ngi fàttali ko mooy lan ay puupa <laughs> Saalix doon na ko wax naan yenn jigéen ñi ay puupa rek ngeen di jur puupa mooy doom joo xamante ne ni kenn buggut a jur kenn buggut wallaay xam nga jigéen dañ naan euh, doom mhm. bu baaxee ñëpp ko jur da naan kii doom day am nu muy mel yow koy bëgg a jur dëgg la di moom sama doom la moom mhm. kii moom sama la moom mhm. mais am na nu muy mel doo ko bëgg a jur mukk ci àdduna liñ naan doom bu baaxee ñëpp jur ko waaye bëne ñëpp na ndey ja ñëpp na diw mooy yaayam dañ ci daal di dégager seen responsabilité ba mu set sa mhm. na muy mel lay doon léegi nag fekk ngay mbubboo di am doole yu di di di ndamoo sama jëkkër fi laa ko fas parce que sa jëkkër loo ko wax loolu lay def mhm. yow li nga bëgg ci loolu lay nekk loolu sa doom après day feeñ si moom hmm. li olof Njaay naan ku ñuulug sa jëkkër day yàq sa doom nañu bàyyi suñu jëkkër yi ñuy jël di leen yóbbu ci sëriñ yi di leen mhm. sëriñ tuu loolu amul mucc waa ñii sëriñ tuu seen jëkkër amul mujj amul mujj amul mujj laa la wax waaye ñooñu nanaa ñooñu moom wax dëgg yàlla amaluma leen di wax. ah mais Feuz am na de dem ci sëriñ. am na kay amoo leen loo koy wax lu dul sama jëkkër mu takkaat keneen am ci ñoo xam ne sax dañuy dem ba naan la euh, boo ko ñoñalee ay ginaar nangam ak nangam mais mais mais mais. dinaa la nettali benn histoire boo xam ne maa ci teg sama bët benn maire. xam naa sax xëy na su ma leen waxoon fan lay nekk ban place ñu bëri dinañ ko xam. Mm-hmm. dama ko faa yàgg romb maire bi wérut foofu la dëkk ci benn arrêt bus la. Mm-hmm. fa la teg ay bagages am fa lay fanaan maanaam fa la dëkk waaw kenn xamu tax ay mboqam sax léegi fan la nekk. Mhm. Euh, léegi man chaque matin su ma doon xëy dam koy romb foofu noonu chaque jour fa lay nekk. ndeysaan léegi comme maa ko gis foofu wéeru xel mi kii ba benn jour ma toog ak benn paa foofu côté boobu ñu siy waxtaan mu demee expliqué ne ma boo xamoon mère bi li mu def doo ko yërëm. Hmm? moom paa bi ma ne ko ah mu ne ma kii ba muy sëy ma ne ah mu ne ma wujj wu ma sa am jëlee na la fa. maanaam ku jëkkër ji taq. Mhm. indi ko ci kër gi mu def ay dii bi daabaam ba nga génn kër gi. ndax lan problème héritage maanaam njaboot gi nga xam ne moom la am ak jëkkër ji. waaw buggul ñooñu. kenn rax leen di séddoo ay ay. ndono te moom xamul sax xam moom xamul woon sax amaana xëy na moom moo doon njëkk a faatu euh, ku euh, nu mu tudd jëkkër ji wala déet. ah dafa mujjee faatu déedéet xa déedéet xam nga loolu mën naa ne. waaw bien sûr ma toog di fekkee xamoo ba xam yoon di ko jiit wala déet bien léegi moom li mu doon def mooy ku ñëw boo sëysee balaa nga mhm. faa am doom dem ci ay pexeem moom allah léegi moom maire bi dafa mujjee yenu ay bagaasam xam naa laal na lu mu war laal rek li ma la wax sànq ne la du ñëpp la ñuy laal xam nga mm-hmm. des nga laal laa laake mm-hmm. maire ba fi mu ne nii talatul dara xamul lu xew ci àdduna bi xamul lu gaal di riir xamul ay njabootam ci lan lañ nekk ndax xel maa dem xam nga ki sa xel dem moom xamatoo lu mm-hmm. xew maire bi looloo ko arrivé fi mu ne nii may waxee ak yow kon nga xam ne yenn yi jaru ko Mm-hmm. yow yaa ngi xëccoo ay alal ak ay héritage yow li nga war a xëccoo kay mooy amal doom joo xamante ne dina baax yiir la ba tey jii mm-hmm. balaa ñuy xëccoo ay kër sax fekk moom tabaxal na la kër ba wallaahi wallaahi nan la ñuy xëccoo ci alal bay tax ngay jël ay dem ci ay maama naan liggéeyal ma diw mm-hmm. defal ma nii diw wallaahi lan moo ko fi jar doy na waar doy waar donc mi ngoog euh, dugg nañ ci sëy yi dugg ci euh, euh, fépp rek daal nañu fay cof waaye tamit ba tey rek ñuy waxtaanee li nga xamante ni moom mooy maraboutage ci seen mission fi lay xewee feuse dem ba ay ay nit ñoo xamante ni dañuy bokk baay par exemple mhm. dañuy dem ba parce que comme ni ñu koy waxee rek lu lu lu lépp loo xamante ni am na ci ñaari way kujje yi wala ñaari way denteente yi dafay feeñ dafay refléter ci seen njaboot mhm. donc dem ba ay doom doomi bàyyi wala sax ñoo xamante ni dañoo bokk ndey bokk yu jege dem bay liggéeyante ci seen biir defal ma kii bu mu am dara waxal ma kii nangam ak nangam dem ba yàkkante googu noonu mu mel ni maraboutage kon bari na lu mu yàq ci société sénégalaise bi. jàq mhm. na li mu yàq toujours rek li ma naan leen li mu yàq mu ëpp lu muy defar. Mhm. te xam nga nanaa nag euh, sànq dama ne la ku naan amul rek dafa laa jàppul njabar lu am la de dafa am. dafa am pur ndax dafa am sama benn xarit bu ma mës a wax lu mel noonu euh, Ablaye Cissé maa ngi nuyu. di ko ziar sama taalibe baay bi. Mhm. di ko ziar bu wér moo ma mës na ma ma nekk ah mu bul ñaan yàlla mukk euh, ñu jël sa tur def ko ci xaatim. ah ma nekk ah ne ma waa parce que bu bu jàppul à pour cent. wala yàlla dimbalee ba jàppul à 100 pour cent ma nekk ah, ma 50 cent yi dina jàpp. dina la ah jàpp noo def moom mu laal la moom. xam nga mën ngaa toog ni sa yaram diis wala sa xel. wallaahi wallaahi fekk amaana sax. Mm-hmm. am na ci xaatim bu ñu tudd sa dugal sa tur bi rek. Mm-hmm. sëf ko fenn wala ñu kos ko suul ko. Mm-hmm. Euh, pour wax la ne la lu am la. alxuraan ni mu baaxee ni muy defaree noonu la amee lu ci yàq. ndax xam nga alxuraan li tax mu doy war a mooy ñu ci bëri buñ ci buñ ci yàq baat yi dañ koy dëpp. xam nga ne alxuraan ak ni mu diise. wallaahi ni mu fooree nga xam ne lu baax rek la war a def nga jël yenn baat yi yenn araf yi di ko dëpp wala nga di ko juutal yooyu mooy indi yenn safaan yi di def yenn yi nga xamante ne ni lu ñaaw lay doon mm-hmm. bu dee nag ñi nga xam ne ci xam-xam yu ñuul ci la ñuy dox mm-hmm. ay sunguuf léeg-léeg nga gis koo xam ne sax ay deret lay tuur wallaahi di def ay sacrifice mm-hmm. pour def la loo xam ne ay lu ci demee nekk ay corte parfois nga toog fi nga toog doo dem fenn demoo dikkoo wallaahi jékki-jékki sa yaram bi di ruux am yu si dox ci biir doo xam lan la fekk corte lañ la sànni ca yàlla léegi bu say mboq teelu ta xam loolu ba jug ci yow te am na foo xam ne bu fa eggee rek amaana euh, mën na la indi loraange. Mm-hmm. te lu am la nag am na ñu ko fiy def. Mm-hmm. am na ñu ko fiy def muy di ci alxuraan bi wala mu dee ci xam-xam bu ñuul bi. Mm-hmm. ak lu mu mën a doon rek sunguf seeg lépp lu mu mën a doon gaa yaa ngi ko ciy def pël yi di fas sax. yooyu dañ koy def. doy na waar toog toog ñu sànni la ko. doy na waar doy na waar nga xam ne yàlla li ma la waxoon sànq rek moo mën a seetaan kay. Mm-hmm. wallaay moo mën a seetaan <laughs> donc euh, laataa ñuy. xam xam na mu waroon a def. Mm-hmm. <laughs> dafa waroon ku jël fas di sànni mu jël ko delloowaat la ko yow. kon ah. léegi tey affaire yi jeex. doy nawaar waar de. doy na waar de ah, loolu rek la waroon def. donc 16 h moo jot euh, fii ci Télé Sénégal oh, donc euh, laataa ñu yeegalee euh, peut-être point yi ñu dese ci suñu thème bi nga xamante ni moom lañ leen indil tey jii ci biir émission fii lay xewee dañ leen di indil seen rubrique astuce et beauté.